sëriñ Mor Kayre sëriñ Mor Kayre mi ngi gane àdduna ci atum 1874 ci dëkk bii di Kayre àll Kayre àll mi ci suuf sii di xombal dend ak dëkk bu mag bii di xombal juróomi kilomètre moo dox ci seen diggante nekkit ci suuf sii di Kayoor sëriñ Mor Kayre doomu sëriñ Ousseynou Kayre la ak soxna Anta Jenn moom sëriñ Mor Kayre mi xamuñu kenn ku mu bokkal kii di soxna Anta Jenn kon benn waajuram la wu jigéen di soxna Anta Jenn bi matee dal lii di alxuraanul karim ci ëttu waajuram wii di sëriñ Ousseynou Kayré nekkit ci dëkk bii mu cosaanoo di Kayré àll dend ak dëkk bu mag bii di xombal juróomi kilomètre dox seen diggante la jànge lii di alxuraanul karim ak lii di xam-xam ba ju fa lool nekk fa sax nag di jàngale nekkit ci ginnaaw waajuram wii di liggéey mu tëdd guddi ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim feeñu ko lu ko jiitu nag kii di sëriñ Mor Kayré yitteem ak pexeem mooy demoon Màkka sallallahu taala alayhi wa sallam ak i sahabaam bi loolu nekkee pëj pëj ci xolam ba mu am yéeney def ko la ko nag ku baax ki feeñu moo tax sax marsiyaal na ko màkka laa namoon ak Muhammad ak i sahabaam nakate mbàkke lay mujj ñu teewlu way yim ci def ngir seede ne rek loolu la namoon Màkka laa namoon ak Madina ak Saam ndeke booba Mbàkke laa jëmoon leeru Bàmba gi moo ma ñot di may dox di pempemi ba yàlla ma ko won ma nga ma booleeg moom ci ay nelaw won ma melaw yónneen ba dootuma selaw yombul bu doom xamee ngëneelal maamam ngeen baay ba baax na doom ji def nit jaamam su ko defee ngëneelal maam yi won ko ngëneelal baay ba yu tax mu sax ci di ko woy Bàmba ma may man kayre may wane xar baax yónneen bi warog lu ko réet kon ma wax leen sëriñ Mor Kayre li ko indi ci ëttub sëriñ Tuubaa Seexul xaddim bi ginnaaw bu mu tëddee guddi ci dëkk bii mu cosaanoo di kayre àll nekkit ci suuf si di xombal te juróomi kilomètre dox digganteem a xombal la am guddi nag ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim feeñu ko booba sëriñ tuubaa seexul xaddim mi ngi ci dëkk bii di tuubaa mbàkke ndax booba la koy doog a sanc daanaka mu tombeek ci atum 1890 la ñëw tuubaa nag gisee ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim ginnaaw bu ko sëriñ tuubaa laajee moor kayre ana nga bàyyi ko ko mu wax ko ci dëkk bii di kayre àll nekkit ci wetu suuf sii di xombal te juróomi kilomètre dox seen diggante seexul xaddiim nag wax na ko yoon wi ni muy tëddee sëriñ moor kayre jaayanteeg moom nekkit nag ci moom ndax jógewu fi ba ni sëriñ tuuba seexul xaddiim bàyyi ko tuuba dem ci dëkk bii di mbàkke baari boobit sëriñ moor kayre mi ngi ànd ak ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ci dëkk boobu di mbàkke baari jolof ci atum 1895 sëriñ tuuba am na fa xat ak ki di maam abdulloo convoqué ko lii di ndar mu daal di dem ci réew mii di gabon keroog bi muy dem ci dëkk bii di ndar njaboot gim dénkoon kii di maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Moor Kayre mii ca la bokk mu ànd ak maam Cerno fu mu dem ci njaboot gi ànd ak moom yóbbaale na kii di sëriñ Moor Kayre ba ni sëriñ Tuubaa Seexul Xadim ñibbisee ci le 11 novembre 1902 sëriñ Moor Kayre mi ngeek maam Cerno Ibrahima Faati bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadim ñibbisee nag comme ni ko mag ñépp Kayre dem na ziyaara ji ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim waaye booba jotagul nag lii di ngërëmam mi ngi ci daara ji di muritu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñibbisi 1903 mu demaat lii di gànnaar ci baneen convocation bu jaare woon ci mbaaxaan tubaab bi duggaat ci yóbbu ko ci réew mi di gànnaar sëriñ Moor Kayre ba nëga ni mi ngi ci daara ji muritu ci atum 1905 dem na fii di gànnaar fekki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci dëkk boobu di Sarsaara la ko fekk foofu ci dara la ko sëriñ Tuubaa seexul xaddiim joxe xasida goo xam ne ni gaay yu baax yi fa ñëwoon doon ko ziyaare si la ci tàgg xasida gi mooy innal la siina ilaa sarsaara xat xasadoo siyaaratin faaraxoo yi ne xaw zaara bi ko ko baax ki wane kii di sëriñ moor Kayre sëñ Mor Kayre def na ci lu tolloog fanweeri way yiitaat ko sëriñ Tuubaa seexul xaddiim seexul xaddiim di ko wax ne Mor Kayre lii mat naa fonk ngir seede na sëriñ Mor Kayre seexul xaddiim moo ko wayloo ci gànnaar moo tax def na ca ay way di wax ne way na ko ci gànnaar way na ko ci cëyeen jolof ak njaareem tënk na ko ci ay way ñu teew lu way ya sëriñ bee manoon del sant yow aw nga yoonu jub jàqati mbaa ngay jooy xanaa doy na ay ngërëm mu delloot ci yoor yoor beneen lal ma woo mu ñëw mu jox ma këyit wow bégle laa sekk ci mbindam mbindam mbaa ma wax sa jub te it moo ma soññeloo ku yëg lii bu may gotteeti mooy sëñiru dëngam ginnaaw ba it yooyu sëñ Mor Kayra nag dafa wéy di des lii di gànnaar ba atum 1907 sëriñ Touba seexul xaddim bàyyikoo ci dëkk boobu di gànnaar ñëwaat ci beneen résidence surveillée ci dëkk bii di cëyeen cëyeen jolof googu sax fi la nag sëriñ moor Kayra jote lii di ngërëmam mu mën a delluwaat nag ciy mbokkam ndax ginnaaw bu mu liggéeyee ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim ba jot lii di ngërëmam keroog bi ko sëriñ Touba seexul xaddim di gërëm ci cëyeen jolof ñetti nit la ko booleel lenn ngërëm ak moom muy ñeent muy sëriñ Moussa Halima Gueye sëriñ Gueye Omar Gueye Anta Nguna sëriñ Maxtaar Penda Dieng ak moom sëriñ Mor Kayre ñoom ñeent ñi la sëriñ Touba Seexul Xadim gërëmandoo ci benn bis ci dëkk boobu di Ceyeen Jolof boole kook sëriñ Touba Seexul Xadim jox ko benn mbubb moo xam ne nii dafa taq ripp lii di daa wala am lii di ay tuppi tuppi daa sëriñ Omar Gueye Anta Nguna moo ne sëriñ Mor Kayre sa mbubb mii de am na lu may tegtal ci sa jëmm ji sëriñ Mor Kayre ne ko lu mu mu ne ko tupp tuppi daa yii de daf may wax ne yow ku war a am ay taalibe nga ndax tupp-tuppub daa bu ne ay taalibe la may misaal sëriñ Mor Kayre jóge ci dëkk boobu di Jolof ñëwaat nag ci dëkku cosaanam bi di Kayre àll nekkit ci wetu xombal waaye bi mu ñëwee foofu dafa des nag ci dëkk bii di xombal nekk fa nag lii di ab tailleur di ñaw taxagul nag mu am benn taalibe bu ko topp ginnaaw bu mu nekkee ab tailleur ci dëkk boobu di xombal di fa ñaw booba maam Cheikh Ibrahima Fall làmp Baabul Muridina mi ngi ci dëkk di sëriñ Mor Kayre ne ko Mor Kayre seetlu naa ci yow ñetti keef yoo xam ne nii il faut que nga dem ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mu tëjal la ko bala koo àddunaa fuq ndax aka mën a ñaw aka rafet aka neex baat mu ne ko ñetti keef yi daal pour nga mën cee mucc ci jamono il faut nga dem ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mu tëjal la ko kon ci la sëriñ Mor Kayre bàyyi ko ci dëkk boobu di xombal fekkiwaat ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci dëkk bii di njaareem sëriñ tuuba seexul xaddiim ne ko moor kayre lu tax nga si waat sëriñ moor kayre di ko wax ni moom daal dafa jort ne ab liggéeyam dafa mëtul ak bi ma jógee ci yow ak léegi daal ku ma dëkkal daf ma të sëriñ tuuba seexul xaddiim na ko moor kayre yow dañ laa tànn ba képp kuy ànd ak yow it dañ koy tànn moo tax koo dëkkal të la ci la nag sëriñ moor kayre jógewaat ci dëkk bii di njaareem ñëw nag ci fi mu nekkoon di xombal jóge fa nag dem ci beneen dëkk bu ñuy wax njegam njegam googu nag fa la nekkoon di liggéey ba ku ñuy wax gàjju fay gis ko fa sëriñ moor kayre melokaan waag lépp doy ko mu ne ko man daal ni ma la gisee nii dama bëggoon nga yóbbu ma ci ku baax ki ma jébbulu ginnaaw bu ñu àndee moo gàjju fay mi ñëw ci dëkk bii di njaareem fekk fi ku baax ki sëriñ tuuba sëriñ moor kayre wax ko li ko gàjju fay mii wax ba noppi ginnaaw bu gàjju fay jébbuloo ci ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ko àndal ak Mor Kayre mii nag nekk ci moom lum la digal maa la ko digal lum la tere maa la wax nga ba ko kon nag ci dëkk boobu di jegam la tàmbalee amee ay taalibe ginnaaw bu mu àndee kii di gàjj fay ba yóbbu ko ci sëriñ Touba Seexul Xadiim itam mu boolewaat koog moom bi sëriñ Mor Kayre ñëwaatee ci dëkk boobu def na ca ay way di seede ne ci dëkk boobu la seexe nag ame fay taalibe muy jegam ñu teewlu way yim ca def jegam la jaayam mbaamum déex réer laa xamee seex ba sàlli nga ne dootu fa jeex bu ñu wane seex ma sàmmaani ginnaaw jegam ñëwaat na nag ci beneen dëkk bu ñuy wax kuluk kuluk googu nag fi la amee taalibe bu ñuy wax sëriñ moor mareem njaay sëriñ moor mareem njaay mi dafa am bis ci njaareem sëriñ tuubaa seexul xaddiim sasoon seex yépp lii di ab junni waaye kii sëriñ moor kayre dajale na taalibe yim am yépp daal ñaat téeméer ak juróom benn fukki dërëm dong la am bu ñuy wax sëriñ moori kànji la doon dajale taalibey sëriñ Mor Kayre yépp ci ñaar téeméer ak juróom benn fukki dërëm dong lañ joxe booba loolu lañu am sëriñ moor Kayre daan ne Móori Kànji mi demal ci Mor Mareem Njaay wax ko bi ñu ñëwee ci kuluk fekk fi sëriñ Mor Mareem Njaay sëriñ Móori Kànji mi wax ko li ko sëriñ moor Kayre wax dana ko ñaata nga am mu ne ko ñaar téeméer juróom benn fukki dërëm de laa am mu ne ko jox ma ko mu jox ko ko mu yëkkati junni jox ko ne ko soo demee nga jox ko sëriñ moor Kayre joxe ne ko junni bi ca sas wala ñaar téeméer juróom benn fukki yi moom mooy ki ko moom maa ko ko jox amaan na beneen taalibe ku ñuy wax sëriñ moor koddu njaay taalibeb sëriñ moor kayre la waaye ku yéeme la woon moom jëmm ji ndax sëriñ moor kayre daana toog ba mu yàgg mu ne ko moor koddu njaay ñëwal wax ma ëllëg walla ñëwal géntal ma sëriñ moor koddu njaay mi cinq minutes rek lay tëdd nelaw yeewu ne ko ku baax ki nangam ak nangam danga ci jot wala dana am te taalibe bi itim moom amoon na ko ñetti taalibe yooyu ñu leen limal ñu nekk taalibey sëriñ moor Kayre day firndeel ne rek li ko seexul xaddim waxoon na yow dañ laa tànn ba koy àndal dañ koy tànn firnde la ci moo tax ñu indi leen ñetti taalibey sëriñ moor Kayre yooyu ngir dëggal wax ja ko seexul xaddiim waxoon rek. sëriñ Mor Kayre bind na itam lu takku ci wàllu lii di ay xasida ak ki way ak lii di ay taalif lu tollu juróom benn fukki xasida ak benn bind na ko yii mu jagleel ko ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim yii mu jagleel ko njabootuk sëriñ Tuubaa seexul xaddiim yii mu ciy tagg rasulullahi ak i sahabaam yii mu jagleel ko ci jumaa ji ak soññeb jumaa ji ci atum 1932 bi cheikh moodu moustapha mbàkke fondement lii di jumaa ji sëriñ moor kayre def na ci yaatuwaayu jumaa ji ak guddaay bi ay way ñu teewlu way yi sëriñ moor kayre jagleel lii di jumaay tuuba di wax ni mu toll ak yaatuwaay bi néeg bi sëriñ mbàkke mooy ki nag ti koñom neel na sosooy dal bi kayre taari xalal dal bi ne xandak la saf ba gan ña dajee xawma ci tuubaa keroog fu gan ña delul xibla gi téeméeri meer yooy tegu lëf yaatu gi téeméeri yées na lëf dëggalal neef na kenoom yee baree ni xaaf gu tegal li taxawaayub minaari xaaf la nawal ginnaaw way yooyu ngeen doon déglu defaat na yeneeni way jëmale ko ci lii di jumaa ji di soññee mag ñi ñu gën a farlu ci sas yi ñu leen di jox ci jumaa ji ak lii di njariñul jumaa ji ñu teegluwaat way yooyu mu def ci lii di jumaa ji ak liggéey bi man kay ruuj naaj te door setal na cam ci ba tax naa raadul ko bamba tool bee jumaa ji ñoo leen nu bay ci kuy añ nu añ ci am way fa bamba tey maa ngi teew fii jëwriñ ju sos fii may daldi del fii lii di araabitim daa na ko waye ni mu ko neexe kii di sëriñ cheikh mbàkke gaynde Fatma du taawub cheikh mamadou moustapha mbàkke way na ko ay way yoo xam ne ci arab la ko tënke ñu teewlu way yim way ci ku kooku di sëriñ cheikh mbàkke gaynde Fatma ama anta xuz minni barawata jahilin muhibba samuutin qad hawaa xilma waasili li cheikh mbàkke sikkiitun walakinahu dara

علوم ولي محسم كل قائل لذلك ينشا فيه في كل مكتب بنوم ونشر مده أكمل كامل ومن كان ذا عقل وميز زادة ليحتر لديهم شيخ بدون التماثل وإن أدبروا عن شيخ أكابر نهجنا فنمكس نعطى عنده خير طائل أحباء شيخ دوموا على حبه معا لمن حبه fadlun ala kulli faadili lii di màggalug daaru xuddóos itim way na ci ñi nga xam ne nii dañ cee am waneen gisiin ba jort ne màggal gi mët ta def ñooñu itim tontu na leen ci ay way man dégg naa waaju naa màggal gi am di saxal bi daala nekkul ci alxuraan na see moom na seet bayit yi ma tontoo seetlu laa yaya kon mu bàyyi dii ngat ku noppee dañ ci yàqule moom te kenn kat mun la soppim réew na fa rafetal njortam ci xew-xew yi xew tey mbaamu rëccu ji moom ku bañ xalifatu doo gis loo safoo ci mbiram moo tax ba kookee du suxlu maggalam gile moom bidaa bu dee ñaar bidaa bu baax ba yow bu ko bañ bañal bu ñaaw bi ku di ngat rëccu lay mujje moom loo jëkk sab xiina kaamil ak juróom du bidaa bii lim ku koy jote baayam kooko wàcc na moom ku jëkke bii lim ci alxuraan sarax ko sa baay sa baay budul xutbu laqtaa bit dafay texe moom sakaatuma bamba mi xaw xarful xiyaasi ku sax ci jàng yi mooy te xay moog waaju jàng ne moom bidaa bu baax ku ko bañ ay maaska lay jëkk bañ bañ samb yaag suq yaag siddaam ya nay nangu moom booloo dinaa fi koor kuy bañ bidaa na ko bañ ibnul xitaa ba ko sos bidaa bu sell la moom yaxal xuraan def ko benn téere def na bidaa xaaj la woon saaba yaa ko boole yee ko ci moom jeeg buy sëy war a yor jikko ju baax itam def na ci ay way di tënk yéen jikko la war a yor jigéen balaa baax nangoo dem dagga tey rooti tey togg jox sëriñam balaa tilim fóoti te lawet nangoo yor njabootu kër ga yaatu ci gan te mokk mokk ba buy neex góor ga muy noote te neexu làmmiñ woyof mbir toy yu bay safu xob tey bu këram gaag ëttam baak lal ba tey boote te def mbañum rus te làmboo kersa tey mën a muñ tey doomi soxna ji wér fu mu sëy mu yokkooti sawar yaroo yaru am xel loo ko yónni mu dem tey jekki néegam balaa dem fenn taggoot tey nëbbu tey muuru tey lamsal jigéb sëriñam tey nëbb jaambur ña tey wax ndànk buy woote bis bu ayee fonk ak toggam di nee xalu ñam bum yàqu bum saxaraan nay saf bu xam léeti rafet rafet njortu tey xeeñoo kolat koloñu du fecc lu mu mer dootul werante deeti lu mu am joxub sëriñam lu mu am waxub sëriñam lu mu ñàkk muñ bis bu tooñee dal di tuubeeti jigéen ju mel nii ma wax gàncam warul ne xasar giñ doom ju mu am am barke bay tuuti ginnaaw jeeg bu baax jeeg bu safaan ba def na ci ay way di tënkitim jeeg bu bon nu muy mel jigéen balaa bon te loo ko sant mu bañ bis bu ayee naqariw faf la yót tuuti te ay ci sa dund boo téyewul mu wàññi sa njël dem jaayi bis bu xëyee ànd ak jabay joote bañ wujj dal tontu boo nee tey mu dal dina kan te loo ko jox du ko naw say guddi lay joote te fank moo xam ni fu mu toll xuloog jëkkëram bu jëkki néegam te demtil fenn tàggooti amaana muy làmbatuy foogoo ko toog ak far léeg mu fay mbaa mu dem néegam du tar seeti ay dal na soo sale ndaw doo gis mu am lu ñu naw ngir daawul jëf lu naw daawul jëluy root lii di melaw murit saa deex def na ci ay way di wax murit saadeex dëgg-dëgg ni muy mel li di liggéeykat yi itim def na ci ay way di wax kuy liggéey itim naka la mën a farloo way na itim lii di saxaaba yi ak yonent yi di wax ne ni saxaaba yi jàppe yonent bi ni la seex yi war a jàppe ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xadiim loolu itim def na ci way sëriñ Mor Kayre li xew léegi itim def na ci ay way maanaam nit ku tëb tëb rek di woote ak seex mu leen di xamal ne ak seex dañ koy tànn taalibe yi am léegi itim wax na ci di wax ne taalibe dafa war a fonkub sëriñam mel ne néew metti waaye réew mi itim wax na ci ak lii di doomu aadama bu war a fonkub liggéeyam wala doomu aadama buy liggéey nu mu war a mel dëkk bi di Tuubaa def na ci ay way ci misaal daal lu tollu juróom benn fukki taalif wala juróom benn fukki téere yoo xam ne ni ay way la ci arab ak wolof ngir tolluwaayu réew mi ak lii di askan wi ni ñu war a dundee rek la ko jagleel moom Serigne moor Kayré moom Serigne Mor Kayré ginnaaw bu fi Serigne Touba Seexul Xadim bàyyi ko ci le 19 juillet 1927 dafa topp nag ci ginnaaw taawam ba di Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke di ko liggéeyal nangul ko def ko lii di ab seex Cheikh Mouhamadul Moustapha dajale woon na seex yu bari yóbbu leen ci dëkk bi di Taïf Serigne Mor Kayré ci la bokkoon ca foofa sax la sànce nag dëkkam bi mu njëkk a di ndoni ndoni soriwul dara Taïf Taif ginnaaw bi itam sancaat na baneen dëkk bu ñuy wax Kayre Kayre mi ngi ci wetu dëkk bii di ndóoyeen soriwul dara itam lii di Taif Mbàkke ci Kayre googu sax la génne lii di àdduna ci atum 1951 ginnaaw ba mu jëlee léppam nag jox ko taawu cheikh Modou Moustapha ba di sëriñ cheikh Mbàkke Gaynde Fatma doomu soxna ant Jenn ja ak kii di sëriñ Ousseynou Kayre sëriñ Moor Kayre mi ngi génn àdduna bisub dibéer fukki fan ñaar ci biir weeru koor ci atum 1370 ci gàddaay gi dibéer fukki fan ñaar ci biir weeru koor ci atum 1370 ci gàddaay gi dëppoog muy dimanche 17 juin 1951 dimanche 17 juin 1951 ci dëkk bi mu mujjee sanc di kayre nekkit ci wetu dëkk bi di ndóoyeen ñu jëlee ko fa indi ko ci dëkk bi di Touba denc ko ci armeer yu mag yi sëriñ Mor Kayre ay xalifaam nag nii la tëdde sëriñ maam Cerno Kayre moo ko wutu ci atum 1951 ba atum 1998 ñaareelu xalifa sëriñ Mor Kayre mooy sëriñ Abdourahmane Kayre moo fi toog 1998 ba nëgëni ñu koy ñaanal mu sut waajuram wa aw fan te yor barkeb waajuram wa ak mbooleem njabootug sëriñ Mor Kayre gépp moo xam sët la doom la taalibe la ak soppe sëñ Mor Kayre am na bis nag buñ koy fàttaliku muy lii di ak màggal di fukki fan ak ñaar ci weeru koor di bis bi mu génnoon lii di àdduna ci dëkkam boobu mu mujjee sanc di kayre moom la ko ak njabootam di fàttaliku ci tuubaa daarul xuddoos ñuy ñaan ci darajey bindukatub seexul xaddim bi ka daa tagg njabootuk seexul xaddim gi ka jote woon ngërëm ci dëkk bii di ca yéen jolof yal nañu ko yàlla fayal te yokku leeram te may barke ak fanu gudd lii di njaboot gim fi bàyyi ak mbooleem taalibe yi mbooleem jullit yi te def xéewal ak naataange ci darajey jëmm ju sell jooju ci réew mii di Sénégal amiin mii di Sénégal amiin di Sénégal